ginaaw bi ñu sante sunu borom subhanahu wa taala santé yi war ci mom jommale ko li jom ci mom julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam gën gaate di julli sant sunu sëriñ sunu buntu ci l'islam suñu yaakar tay ak alak Cheikhul khadim khadim Rasul di nuyu mbolem jullit yëpp ak sénégalais yëpp di jiital ci nuyu bobu nak khalif général des Mourides amirul amirul Mouridine Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal sunu borom mu defal ko wér ak kattan ba li mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba mu def ko comme ni mu gënalee Serigne Touba di sant mboolem taalibe yëpp di leen sant nag yéen waa Dakaractu ndax gis nañ seen taxawaay bu baax ci ñun ak topp gi ñuy topp. ak yéeg-yéeg bëgg gi ba tax na euh, sant nañ leen bu baax di leen gërëm ci seen liggéey euh, ndax mat na sëkk gis nañ ne euh, site la bu am personnalité waaye tamit bu tegu ci yoon la ci li muy bind ak li muy wax yëpp kon nag ñu ngi leen di sant bu baax di leen gën a encouragé ba yenn lenn yi ñuy dégg ci yenn journalistes yi ñu bañ leen ciy dégg di sant seen njiit bu baax muy sëriñ ak suñu taalibe boobu nekk foofu nga xam ne lépp moom moo ko waral muy sëñ Sele sëñ Sele Mbay euh, bisub tey nag day bisu mbégte boo xam ne ni ma koy faral di waxee rek bis la boo xam ne bisu màggal fi muy njëkk a commencé mooy màggal dafa nekk lu rëy day mel ne ñetti guddi la sëñ Tuubaa dajale jox ñu ko ndax boo bindee màggal miim gi miim lay doon keef laam miim dafay nekk mawlidu nabi muy guddik euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam keef gi nekk kanzu rajab laam gi nekk laylatul qadri kon dafay mel ne ñetti gudd yooyu lana sunu boroom jagleelal ci sëñ Tuba defal ñu ko ñu koy boole di ko santal sëñ Tuba ba tax na dëgg-dëgg màggal moom comme ni ko sëñ Tuba bëggee rek lañ ko war a defee ana lan mo lan moy sababu serigne bi ak tukki bi ni ma koy faral di waxe rek sababu ghaibati ya anna allah arada an anaala minhu jaha wa an akuna shafian li qawmi wa an akuna khadiman fi dawmi sun borom mo beug mu am ci mom ay daraja ba pare ram mu ram peuple am waye mu nek ligi liggéeykatu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sallam koy faral di wax lu bare bare biñ ko laajee ne ko kañ nga génn ak ban dat la ak ban weer ak lu ko waral dane xarajtu génn naa ñu ne ko kañ nga génn mu ne yow ma sabti jouru samedi ñu ne ko ban dat mu ne tamina achar le 18 ñu ne ko ci ban mois mu ne fii chahri safar ci mois de safar ñu ne ko lu waral nga génn mu ne li xidmatil muxtaar ngir rëgal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba muy demit moo ko waxal boppam ne asiru ma al abraari xiina asiru wa ramna al ida anni hunaka maa ngi dem ànd ak gaa yu baax yi tubaab yi ma jàpp di samay noonu ñoom jàpp nañ ne ab prisonnier lañ jàpp dande masiri maa al axyaari lillahi binnabi wa ma li li gayrillahi awdu masiru mu ne maa ngi dox ànd ak gaa yu baax yi ngir jëm yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam te man du dox mukk jëm ci kenn ku dul yàlla mel na dañ ko laaj ndax bi ngay dem ci tukki boobu ragal nga wala nga tiit wala nga yaakaar kenn ku lay sàkkul ndimbal mu ne walastu arju yaakaaruma kenn ku may defal intervention wala axsha ragaluma tubaab yi ma jëm ragaluma it kenn si waa maliki yi ku dul sama borom ñu ne lu tax nga ragal sunu borom mu ne li annahu jalla yoo nii nii way ni jii nii xam naa ne sunu borom moom mooy musal mooy ki may mooy ki may musal te mooy ki may jëriñ te it nee من ظن غير الله يغني او يضر فذاك في في الدار ذو كد ودور كيب كون جورتنا ادنا الاخره كين دينا في جيرن با موي لور كودول يالا نينا ياو اي بروبليم رك اكي رك غي ام تي ادنا نينا يعني الدر ونفع من الرحمن ليس من البيضاني والسودان ليس من الاحباب والاعداء منين جيرن اك لور ميغي جوغي سي يالا واي دو جوغي موكو سي اب ولا اب سوبي با ولا كو kon Serigne Touba bi mu tukkee ba tukem bobu euh ba ligéel sunu borom ba sunu borom fay ko fay gu reey reey la oté fay gi dal di wax ne nañ ma ci sant la yàlla wax ne urumtu shukur shukur allah dal jalali min tal min tal shashin bi dhikri wal halali ma sako sant sant sama borom mi borom mag gi maa ko maa sant nak bi dhikri wal halal الذكر والحلال نك لما كوي فرن لي جوه اكزامبل بارينا لول بين واحد الذكر موي لب لو خمنة دفع يجيم تي ولا تودي يلا لما أي تسبيحات أي تكبيرات أي تحميدات أغلب لو خمنة دينا جرين دوم آدم أبي تبير بملم يدفكو غير من تجرينو حلال نك بين كوي خي موي لب لو خمنة دفع لو تدعان تنهارك ni and ko jox ko talibé ñu man ko jëfëndiko kon ci ñaar yoy la la wax ne nañ ko ci sant la yàlla mu wax ne shukru ilahi xaana fi turabi baada jamili sabri fi turabi sant sama borom jot na sëkk ci ci sama suuf ci sama réew ginnaaw bi nga xam ne muñ naa muñ ko rafet ci tumurankel gi nga xam ne tumural leen tumurankel nañ ma ko ana lan la ko ci sunu borom fay sunu borom wax ne dal ne li ko ci suñu borom fay mooy سنتو بارا فخان الا يقاد الله ما لم يكن ولا يكون ابدا للممكن بروم جخنا كو لو خامني دوكو جخ كين تا دوتو كو جخاتي كين تي لي نيو وخني اي جود للجواد ما لا ينفد وكل مخلوق سوى ينفد سن بروم ليغا خامني دو جيخ موكو ديفال موم سن توبا لو خامني دو جيخ ا سن توبا يت وخني ا وخني يت ني فكل من خدمني او زاره فنجي واغفر له او زاره fa ku lu man képp koo xam ne xadama ni dafa maa liggéeyal man sëñ Tuubaa aw zara wala mu déplacé wu bàyyi itam yëpp ñëw ziyaare si ma kooku day fa najjihi wax firloo aw zara na ko musal yow sunu borom te nga jéggal ko ay bakkaaram kon nag day mel ne baydi woowu ooteeg màggal la ndax tey bu ñu xoolee màggal dina làmboo ziyaare si ziyaare si sëñ Tuubaa waaye dina lamboo it euh, liggéeyal sëriñ Tuubaa kon xadama ni aw saara la wax Euh, ku ko liggéeyal wala wala wala mu wala mu ziyaare ko euh, kon Serigne Touba ku ku mat a liggéeyal la ku mat a gëm la ku mat a jàpp la ku mat a fonk la ndax li ko sunu borom defal defalu ko kenn te amuñu it kenn ku dul moom euh, ndax ni ma koy faral di nettalee rek dinaa nettalee benn xista bu yéeme yéeme boo xam ne ñëpp war nañ ci bàyyi xel ndax dafa am benn doomu bàjjanam bu ñuy wax benn doomu nijaayam bu ñuy wax ma Masamba Kanni sëñ Masamba Kanni doomu nijaay la ci sëñ Touba. sëñ bi da ko doon tooñ benn bis ne ko Masamba Kanni summil ma sëñ Masamba Kanni ko loolu sañetuñ ko Mbàkke ndax yaay suñu sang ñooy say jaam sëñ Tuubaa ne ko Masamba Kanni mu ne ko Mbàkke mu ne ko da ngaa bëgg a daw dogalub suñu borom li suñu borom def ndax da koo bëgg a daw suñ Masamba Kanni daal daanu jël ba ba ba commencé su summi ay yéreem sëñ bi ne nañ ko nañ ma ko andil ci néeg bi may bindee biñ ko andee ci néegu ñax bi sëñ baa ngi nekk ci ginnaawam di bind moom mi ngi nekk ci jëll bi sëgg noonu bi ñu demee ba suuf sedd ay trois heures du matin jàpp 4 heures moom sëñ Massamba Kanni mooy nettali nee na dafa gis néegu ñax bi ñu nekk ak sàkket wi dafa gis jëmmi eh, sàkket wi yëkkatiku tegu ne taxamul lu ko yëkkati nee na mu jëkki sax yi gis benn leer gu yéeme yéeme gu foor gu dugg guy dugg si ci biir néeg bi ànd ak jëmm ju xees ju rafet ànd ak parfum bu neex nee na waa waa jooju mu ngi ci biir leer gi di dox leer gi ànd ak moom nee na mu dox romb ko fi mu fi sëgg ñëw ba ci sëñ Tuubaa fi sëñ bi nekk di bind nee na waa ji di ñëw jël ay oomam teg ko ci oomi sëñ Tuubaa jël ab jiwam teg ko ci jiwub sëñ Tuubaa nee na ñoom ñaar ñu sëgg foofu ab diir kenn waxatu ak sa morom waaj ji daal di jekk saay newaat ñokket daal di jug génn sàkkir wi daal di tegewaat na mu tegewoon ñu demee ba noddu fajar sëñ bi oo ko ne ko Masamba Kanni mu ne ko Mbàkke mu ne ko ki fi ñëw léegi xam nga ku moom mu ne ko déedéet Sëñ Tuubaa ne ko rasulullahi la ne ko ne ko daf ma doon ziyaare si dégg nga baat boobu ne ko daf ma doon ziyaare si comme rasulullahi nag mooy mën a dagg itam yëpp ñëw di ziyaare si Sëñ Tuubaa ñun ñi nga xam ne duñ dara war nañoo ñëw di ziyaare si Sëñ Tuubaa kon loolu lu yéeme yéeme la ndax Sëñ Tuubaa amul ku dul yonent bi jaamu bi yàlla la liggéeykatu bi yonent bi la ci ci la ci la ko waxe mom seigne Massamba kan ne ko yéen seen askan bi askanu mbusoo bi day askan wu sel motax matan len jaar ci yéen way adam ak awa sax wuñu kon lolu kuko ko dañ ci gis yéeme seigne touba nak ay garatam buñ ko day xol day mel ñetti ñetti garat la presenter benn bi nak daf ko nëbbu ne ku dul yàlla xamuko ñaar rek lañ ci presenter bi ci jëk moy dafa wax ne ghaba maqami an siwal al qadim fa innani abdun xadimun la yarim sama maqama kudul yàlla xamuko كون ديجا نيتي فوف كو ام خيل دغ نك ماكو سيتلو تخ واخ غاب مقامي عن سوى الباقي القديم ديجا كون فوف بن مقام لا مو خامني كودول يالا رك دو ولي دو يوننت دو ملائكه كان خمكو كودول يالا مودال مودال مو ملني داي باج نيت كي دي خلات ين خلات يو متي موتاخ مو واتي وات لا نلا فا انني عبد خديم لا يرم بول سونال سو بوب نك سي غرات بوب بور جيم كو خام نغا خامني من دال عبد قديم لا يرم من عبد الله لا تخديم رسول الله انا لان موي عبد الله موي غرات بي غينا فور تي يالا نдах يونتي غرات بوب لا ني امي موم لا سن بروم دي اووي نعم العبد انه ابواب ا داني خادم الرسول غراتو خادم الرسول لا ني اوتي و ني اي ليغي كات يونتي صلى الله عليه وسلم دانيو بري واي سن توبا باك تي يونتي صلى الله عليه وسلم باك تي باك سن بروم موي ملك العلي الباقي القديم جعلني اسن الخديم maanaam bu mu ne nguurug suñu borom gi ba ñu dajee ci pays diwaan yi dañoo tànn awliyaullahi yëpp ak ñi war a liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam yëpp moom sëñ Touba ñu jël ko bu doon ay ministre lañ moom moo nekk premier ministre bi nga xam ne asnal xadim lañ ko def mooy ki gën a kawe ci ci ci ci ci ci liggéeykat yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon liggéeyal sëriñ Touba lu am solo la di soññiwaat ndaw ñi bu baax ci ñi di jaamu yàlla selal ko bañ a bokkaale ak seen borom dara ndax jamono ji lii nuru ay bokkale bari na lool euh, euh, sunu borom moom euh, kenn rek la benn buur rek la mboolem luwaay waay foor foor ak loo rëy rëy moo xam ab yonent moo xam ab waliyu moo xam ab malaayika nga mënoo doon lenn lu dul jaamul suñu borom jaam rek nga mën a doon ci kanamu suñu borom kon nag nañu moytu yenn wax yi ndax amul fenn fa Sëñ Tuubaa mos a toog wax ne mom moy yalla ba muy doomu yalla kon bu ko benn talibé sosal ba ay nit di jógee fenn di ñew di jaaré ci porox ndolu yoyu di di di di di di ci jaar di critiquer yoonu mutu loolu nañ koy bàyyi xel seigne touba jaamu bi yalla la wax né mom la ak liggéey katub yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon loolu nañ koy daldi moytu bu baax ñi xamna ne tamit magal ñii ñëw màggal nañuy am comportement bu rafet naa koy faral di wax bo démé ci ab dëkk fekk dëkk ba ñëpp di maté yow boo amuti bañ tamit da ngay jéem a si signal rek ba ñëpp xam ne am ngay bañ même boo matiwul na nga siñ ba ñëpp xam ne xam ne am ngay bañ loolu mooy boo demee ci dëkk fekk comportement bu bu nit ñi di doxalee na ngay jéem a jël comportement boobu. bi sëñ bi tere na fi ay mèche tere fi ay ay xeesal tere fi ay ay ay man moo tax toujours damay faral di wax ne sax euh, damay faral di tooñ di wax ne sax sëñ bi loolu mu tere mèche yeeg xëysal yeeg. Euh, ak ak uh, xuma coupe xuma ongle lañ koy wax yu mel noonu ñun dañ cey bëgg ndax ci ngay daal di xamee taarub jigéenu Sénégal ndax seenu taar yëpp importe la seenub taar yëpp dañ ko importé ndax bu dee seen karaw importé la seen teint importé la seen i xef importe la seen i we importé la ba ci seen i yéen dañ koy sax yett ba mu niroog jaasi jaasi jaasi chinois kon loolu lu mat a xel la waaw kon ku fi ñëw rek ci dëkk bi na nga andi comportement bu rafet bu doon kuy tux la nanga nga ko yemale Dakar boobu mënee sax bu dee ñetti ñetti fan nga fiy def tuxal ñetti paquet cigarette yaa xam après nga nga nga boo ñëwee ñett nga nga nga daal di mën a mën a mën a mën a soutenir sa bopp ba keroog ngay delluwaat waaye ñi respecté li nga xam ne moom la fi sañ bi digle euh, di moytu tamit di fi ñëw di fi indaale yenn jikko yi saw yi am na ci ñoo xam ne bu ñuy dem màggal da ngay yaakaar ne ñii ci am xew lañ jëm te sëñ Tuubaa ootuwul mbumbaay ootuwul am xew sëñ Tuubaa li mu mooy nañ ko santale yàlla bu ñëwee ci dëkk bi dañ fay war a jaamu yàlla jàng xasida jàng alxuraan zikrullah ay salaatu ala bi sant yàlla ci lépp loo xam ne mën nañoo jëriñ ëllëg yowmal xiyaam waaye ootu wut pour ñëw di fo loolu lu mat a bàyyi la kon fi may jeexale samay kàddu mooy euh, nañu am yar ak ay tegin ndax Serigne Touba nee na ñi yaruwul nañ leen yar ndax ku ay waajuram yarul addina yar ko ku addina yarul bàmmeel yar ko te ku bàmmeel yar di nga yaru ndax sunu borom kenn du fa dem di fa yóbbu ak réewande Serigne Touba nee na xale bu amagul juróom-ñaari at buur la ku ko teree doon buur dajeeg buur bu amee juróom-ñaari at muy sept ans doonatul buur ku ko bëgg a def buur dajeeg buur bu xasee ba am 18 ans bakoog buur lépp lu mu defati dajeeg buur loolu nag liñ ciy jàngate mooy xale bi bu amagul juróom-ñaari at bàyyi ko muy fo bu ko tere bu ko sonal ndax foofu buur la nee na boo ko teree doon buur rek dajeeg buur bàyyi ko mu fo waaye bu xasee ba am âge u sept euh, sept ans nag commencé di ko yar ndax kon nekkatul buur boo boo ko bëggee def buur rek dajeeg buur dañu bu xasee ba am 18 ans nag fekk na booba yar nga ko jàngal ko ba xamal ko fi muy teg tànkam kon su boobaa bakkoog buur lépp lu mu defate rek dajeeg boobu am na ñaari xale yu mës a ñëw ci Serigne Touba Serigne Touba ne leen yéen a ngi liggéey ndax yéen a ngi liggéey ñu ne ko déedéet mu ne leen ndax yéen a ngi jàng ñu ko déedéet mu ne leen toroxa ciy topp daa ne ndaw bu bu liggéeyul jàngul toroxa rek lay def kon loolu lu mat a bàyyi xel la euh, Serigne Touba nee na juróom yi bu ñu xam seen i juróom seen waajur bu ñu xam seen i naqari deret seen njaboot bu ñu xam seenu i nay. waxtu julli yi bu xam seen i yitte bërëbu liggéeyukaay yi bu ñu xam seen i tayel yi bu ñu xam seen i ñaawi teggin euh, euh, euh, dëkkandoo yi bu xam seeni i ñaawi seen seen ñaawi teggin Serigne Touba it mës naa wax ku ñuy wax kale sëy ca Jolof ne ko nit juróom yi la alal yaram yax jëf ak ruux ne ko bu faatoo suñu borom da jël alal ji jox ko ña koy donn ne leen donnu leen ko te bu leen ko ci sant maa leen ko jox jël yaram yi jox ko sax yi ne leen lekk leen te bu leen ko ci sant maa leen ko jox jël yax yi jox ko suuf si ne ko lekkal te bu ko ci sant maa la ko jox la ko ci amal soxla ko mooy jëf ji ak ga kon nag na ngeen di sellal seen i jëf tey setal seen i ruu te Serigne Touba nee na mus naa toog ba mu yàgg mu ne mu bind daan ne cey cëy cey daan ne yàlla yàlla mii ko xam ci moom dara doo ko moy ci dara daan ne àddina àdduna àdduna mii xam ci moom dara doo ko fàggul dara ndax dara du fi des daan ne alaxira mais cey alakhira mais ko xam ci mom dara doko fagul dara ba naw ko ba yem ko ndax dara du fa day kon nak lolu nañ koy daal di xel bu baax fi may teji samay kaddu nak moy limay faral di di di di di di di dénkaane saa su nek moy nañuy am ak njub ak siratul mustaqim tegu ci siratul mustaqim fonk suñuy waajur tënku ci l'islam di jang alquran di baril ay salatu nabi ak zikrullah tu togn ak fo tamaanu ci julit yep ku ne na nga respecter sa morom la nga yene sa bop nga yene ko sa morom moytu iñananté bi moytu soxorante bi moytu bañante bi lu way am yene ko ko te xam ne suñu borom moko defal te tayit nañ xamné انظر unzur فضلنا بعضهم على بعض baadin waaye الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا darajatin wa akbaru tafdila suñu borom moo jël ñenn ñit gënal leen ci kaw ñi ci des te gënale googu yowmal xiyaam lay rawatee مو nag suñu borom moo sàkk ay jaamam ku ne mu jox la daraje ja ko neex boo ko kon nañu moytu bañante ak xiiroo ak ŋaayoo lu waaye am nga yéene ko ko Serigne Touba nee na bépp julit bu bëgg a mucc ci àddina na boole juróom-ñeent yi ragal yàlla ragal ku ragal yàlla ragal ku ragalul yàlla bàyyi lu bon bàyyi ku bon bàyyi fu bon lu ngeen xamul bu leen ko wax lu ngeen mënul bu leen ko def lu ngeen moomul ngeen maandu ci Serigne Touba nee na eh, ñett ñii day suuf attunu leen ñett ñii suuf attunu leen mooy kuy nelaw waxtu fajar ak ku rey nit ak ndox mi jógee ci sangum ku njaaloo ba pare nit ki nga xam ne dafa dem njaaloo ba pare dem di sangu farata ndox moomu di jógee ci moom muy wacc ci ci ci ci kaw suuf suuf si day onk ndax moomu suuf attandu ko kon loolu it ñu ko xel bu baax Serigne Touba nee woon na di ngeen dem ba jëmmi jamono ñett bari lool ñett te ticc muy dana jigéen ñi danañ bari lool sëy te ticc place yu liggéeykaay yi bari lool am te ticc téere yi bari lool jàng te ndax loolu accès nañ ci bu baax Serigne Touba nee na aduna jërul alakhirah banex jërul gatcha kon nak ñu tejje fofu suñu wax assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf sëñ bi salaatul lazi fi kulli zarin wa fi safar hamani ala mahim